bon c'est que tey comme ni nga ko waxee rek SAED dafa woote comme ni ko daan défé chaque année ci période bi d'abord fay am bilan mi-parcours campagne bi comme cette saison chaude def aussi xool les contraintes yi nga xam am nañ ko ci campagne bék yooyu yëpp mais aussi def ay euh, prévision de récolte yi parce que lolo aussi dafa am solo planification de récolte yi mën xol naka lañu def ba mën récolte bi mën a ci yoon

prévision hivernage bi aussi de mise en valeur bi lolou dafa laaj bala ñu ci dem aussi ñu ñaax nit ñi aussi pour xol vraiment naka la ñuy mën pour campagne hivernage bi té lolou aussi dafa am lu ko parce que bala ngay wax waxu hivernage fo nga rembourser sa bor aussi donc nga mëna xam naka ngay mëna a hivernage bu féké da ngay dem ci banque bi donc lolou aussi mu am solo motax tax ñuy ñaax nit ñi aussi ñu jël seen matukay pour mëna a teel rembourser mais ci biir loolu aussi vraiment waxtaan nañu ci ay jafe-jafe yi nga xam ni ak contraintes yi ak matukaay yi nga xam ni jël nañ ko pour affaire picc yi parce que fi mu nekk nii il s'est trouvé que TRN am nañu au moins avancement at yi passé yuuxu nañ fi ay yuuxu yu mag ci affaire picc yi parce que même boo boo seetloo sax ci ginnaaw on avait fait recours ci avion Mauritanie mu ñëw jàppale ñu fii ci traitement yi ren nag bi ñu yuuxoo président promettre na avion loolu mu promettre pratiquement jëfe na ko bay tey jii am nañu avion boo xam ne état bi jënd na ko ba mi ngi ci ay mi ngi waaj a ñëw te yóbbu nañ pilote yi aussi formation mooy les militaires loolu aussi mu nekk avancement ren aussi jënd nañu 1000 litres produit Fentian à à coût de 20 millions ñoo ngi ko réceptionné nañ ko ba pare mais aussi am nañu contrat de prestations avec compagnie agricole avec hélicoptère pour nous assurer le traitement aérien yi commencé nañu traiter depuis ñaari donc yo yep nous dafa am solo donc pour wane rek ni vraiment mi avancé bon président aussi de na ay mesures ci affaire ou les charges de production supprimer la prime fixe qui pour station de pompage à griserie mais aussi suppression de la TVA exonération TVA sur les, la TVA non récupérable sur les intrants agricoles pour la riziculture loolu nag mu am solo loolu dafay bokk li ñuy la réduction des charges su ma la réduction des charges nag je ngi bëgg a jëm ci prix cheap parce que prix ceeb moom dañu am ay jafe-jafe parce que nous savons actuellement le prix du riz n'est pas incitatif 130 francs vraiment c'est pas incitatif arrangé wul baykat bi léegi nag c'est sûr que ñoo ngi jëm ci ay 150 francs le kilo te loolu nag dafa am ay waxtaan ay ay ay ay ay démarches yoo xam ni war nañ ko jël ay matukaay parce que waruñu régler problème mu baykat bi rek bàyyi problème mu bi donc loolu moo tax nag ñu war a giseeg état bi ñu mën a permettre au départ on avait fait trois propositions d'abord subvention bu ñu war a def ci 20 francs le kilo sur les 130 pour ñu mën a am 150 xam nga kooku day tax rizerie bi du am jafé-jafé mais aussi benen possibilité bi moo réduction de charge à concurrence de 20 francs le kilo C'est aussi dafay tax vraiment baykat bi du ko riserie bi aussi du am problème mais troisième scénario bi vraiment appliquer la réalité des prix maanaam appliquer 150 cinquante francs kilo pari riserie bi jënde ko 150 cinquante teg ci ay charge am ak marge am dem commerçant bi aussi fait la même chose léegi nag ñu xool prix du marché prix du marché boobu ñuy wax nag dafay un problème maintenant un problème par rapport à compétitif compétition par rapport à li importé bi ñu wax nag su boba dafa am taxe bu ñuy instaurer pour que vraiment prix local bi mën compétitif par rapport au prix bon Benen bi aussi moo di xam naa mënuma pare te waxuma affaire indemnisation parce qu'on avait remis une première tranche mu defoon beneen tranche bi te am na ñoo xam ni sax jotuñu première tranche def nañ ci ay démarches les autorités il y a le ministre Omar Sarr qui nous avait reçu et qui nous a promis qui nous avait promis avec le ministre de l'agriculture de porter le combat pour que vraiment nous nous manque et puis comme le président de de ni dafi tournée économique ay 12 juin ci vallée il y a am nañu yaakaar ni a été fait fii suñu jafe-jafe boobu kat war na donc c'est ça le problème benen bi ak di wax rek suñu audience bi nga xamni ñong koy demander président pour mën régler suñu jafé jafé ci walu mbay mi lool dal mo nekkoon lepp li nga xamni def nañu ben memorandum series bo xamni jafé jafe yépp ñong ko teunk ci bir mom nak lañu bëgg vraiment djébal président dem wax ak mom wax ko jafé jafé yi lañu am ceeb que buñu bëggé autosuffisance biñu wax ñu mën ko am vraiment il faut que jafé jafé yi ñu mën ko saafara d'une en gros daal vraiment loolu laa la mënoon wax ci tay li nga xamni ni ñu fi indi tay pour waxtaan ak baykat yi.